bokki jullit yi bokki taalibe bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mountakha Mbacké xalif général di murit di ñaan yàlla mu yàggal ko fi te wéral ko ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Touba yëpp mu def ko ci sagam te nu ko ak moom di nuyu it sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbacké mi nga xale moo mi nga xam ne moo toog jataay Cheikh Moustapha te mat ko sëkk di ñaan moom itam yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba yéeneem ci liggéeyub Sëriñ Ahmadou Moussa bi yëpp mu def ko ci sagam te ànd ko ak moom di nuyu mboolem kilifa yi nekk Daaru Xuddoos ak yi nekk Touba yëpp wuñ kenn. ah li nu fi dajale nag yaakaar naa ne ñu bari xam nañ ko mooy waajal màggalug Daaru Xuddoos ñii di ko wax màggalug Daaru Xuddoos ñii di ko tuddee màggal gu njëkk gi ñii di ko wax màggalu Sëriñ Cheikh waaye nuñ ko mën a tuddee rek mooy bés bi nga xam ne ci la Cheikh Ahmadou bàmba borom dëkk bi ñibbisoon ci dëkk bi bés boo xam ne si amut benn bés bu mel ni moom moom la ñuy waajal ci biir wàccaay woowu nag dafa am pàcc bu am solo boo xam ne si dañ ci daan def te fas ku yéene def muy bale setal dëkk bi te Cheikh Moustapha digle woon ko defal ko boppam itam nit ñi gis ko bés boobu la ñuy waajal. leen yëgal bis bii nga xam ne Serigne Ahmad moo ko santaane di bis buñ daan def nga xam ne Cheikh Modou Moustapha la tàmbale woon. nee na mi ngi wax bokk yi di woo taalibe yi góor ñi ak jigéen ñi ca lim leen yéene mooy la sëñ ba yéene woon ca loolee mu doon def taalibe yëpp am ko ba bu ëllëgee ñëpp am ndam am liñ bëgg ca wóor na leen ne képp koo xam ne setal nga sun borom mën na laa setal te boo setee boo toqut dara du la téye fenn kon loolu lañuy woote ci turu sëriñ bi ci njiital sëñ Ousmane Mbacké ak sëñ Laat mi nga xam ne moo jiite lii xew-xew bii xew ci yoon wi nga xam ne Darou Khoudoss gépp la dal ci seen kaw moo tax teewut fii waaye ñi fi teew ñëpp moom lañu fi teewal te moo daan jiite jataay bi nee na ñi ngi woo góor ñi di woo jigéen ñi di woo mag ñi di woo ndaw ñi di woo ñëpp di leen nuyuti turu sëñ Cheikh Ndiaye mi nga xam ni moo jiite Darou Khoudoss gépp lu chef de village bi di leen nuyu itam ci tullu délégué quartier yi nga xam ne ni ànd nañu ak sëñ Cheikh Ndiaye ci liggéey bii nga xam ne ni moom la ko sëñ bi dénk ci Touba Daaru Xuddoos gi di leen soññi nag ñoom délégué de quartier yi ak représentant marab bi yi nga xam ne nii ñoo nekk ci gox yi nga xam ne ni mooy goxi Daaru Xuddoos yëpp fépp fu fi ab délégué ne wala représentant marabu wala président daayira ñu ngi lay woo ci mbale mi nga xam ne ni at mu jot dañ ko daan def te ki ko jëkkee woon mooy sëñ Mour Moussa daa ko def ci waajal màggalu Daaru Xuddoos istri na mu xaram di ñaan eh, képp koo xam ne dëkk nga Daaru Xuddoos wala ngay soppeeb Daaru Xuddoos ñu ngi lay woo ci mbale moomu nga xam ne nii ajjuma ji jëm lañ koy def muy tombeek ñaar fukki fan kon nag noo ngi soññi ñëpp. ñu ngi soññi seex si di soññi président daayira yi di saññi mbootaay yi nga xam ni ñooy mbootaay seet seetal yëpp yi ci dëkk bi yëpp bàyyiwuñ kenn ci turu sëñ Cheikh Ndiaye mi nga xam ne moom la sëñ bi dénk dëkk bi ak délégué de yi nga xam ni ñoo ko nekkal ci gox yi yëpp ak président daayira yi nga xam ni ñoom it ñoo ko nekk ak seex si nga xam ne ni ëmb nañ Daaru Xuddoos gépp di di ko tàmbalee nag ci sëñ Abdou Khadir Ndiaye mi nga xam ni mooy borom Daaru njaay mooy xalifa sëñ daaru Assane Ndiaye te ku ne xam na ni mbale mi xam nañ waa daaru Ndiaye niñ ci daa def àndukook kook seex sépp ñu ngi leen ci soññi bu baax di soññit mbooloo yi ci des bu baax di ñaan yàlla yóbbu nu ci jàmm génn nu ci jàmm ci barke Sëriñ Touba. kon waajtaay wii muy waajal mbale mi mooy laltaay màggaluk waajtaayu isriina Muharram màggaluk daaru Xuddoos ba tax na kon moo tax ñu woonu ñu woonu am ndaje fii sëñ Cheikh Ndiaye woonu woo mbooleem ñi mu ko seqal ñëpp euh, commission yi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi ñu ñëwaat yeesaat euh, yeesalaat ndigal li ci ñoom ñu jàppaat gën a gën a gën a fasuwaat gën a gën a gën a yaatalaat liggéey bi ci mbooleem fi nga xam ne fi la war a àgg bañ mën a bale mbale mi ci ni mu war a amee ci saayir ak ci baatin yàlla na ko yàlla rafetal mbale mi dafa soriwut ndax dafa mel ne ajjuma jiinu jëm di lawe ci weeru tubaab ci la ñu war def mbale mi kon diggante fii ak boobu farlu jaadu na ci ak ak ak ak taxaw temm nag ba jumtuwaay yëpp yomb jàppandi ndax loolu rek mooy tax li nu bëgg a def ci dëkk bi sotti ci jàmm ak salaam. Euh, ci biir Daaru Xuddoos am nañ euh, daayira boo xam ne moo lënkale bunti kër Cheikh moomu Moustapha yi muy diwaanul Mouridine kon bu ñu nee diwaanul Mouridine rek képp ku dégg tur wi na xam ne daayira booba mu ngi ci biir moo xam regroupement la. moo xam ak nu mu la tëdd na xam ne soññe soññee boobu mu ngi ci moom mu déglu sëñ Cheikh Ndiaye ci biir ndigalal sëñ Ousmane ak sëñ euh, sëñ laa Abdoulaat Aliou xam ne daa war a soññ mbooloom ñu jóg ndax bale mbooloo moo koy def mbooloo mooy def bale gannaaw bi ñu amee jumtuwaay yi ak la koy doxal kon nag mbooloo mi ñu war a génn wet gu nekk nag mbooloo mi dafa war a génn muy penk sow saalum gànnaar fépp dañoo war a jóg ngir taxaw temm ci dëkk bi set wecc ndax loolu la seex ah, sëñ Amadou Mokhtar bi soxla ci eh, sëñ seex ba dénkoo lii kon nag loolu itam ñun ñëpp nan taxaw ci loolu te xam ne kon nag eh, loolu mooy liggéey bi. Eh, ci wàllu yëgle bi it ñu ko yëgal mairie Touba ci njiitul sëriñ Abdou Ka ñu di leen yëgal bés bi di leen fàttali itam na lañ ci taan def. Euh, ñu defaat ko ba def sax def def sax lu ko raw ndax am na pàcc bu mag boo xam ne si ñoom itam war nañ ko cee euh, war nañ ko cee def kon ñu ngi leen koy ñu ngi leen koy soññi leen ko yëgal di ko yëgal itam waa Touba ci kanam nga xam ne ñoom itam liggéeyal sëñ bi lañu fi nekkee euh, lépp loo xam ne si ñu ngi ko jëme sëñ bi seen loxo nga ci biir ñoom itam ñu ngi leen di yëgal bés bi ci njiitul sëñ Abib moom itam ña xam ne ñoo fa nekk ñëpp ñu ngi leen di yëgal bés bi ñu bëgg bu bés baa ñoom itam seen wàll ñu béy ko ci ba mat sëkk soññ maire bi kon ak euh, euh, tubaa ci kanam te xamal leen ne soxla nañ bu baax a baax matériel lu jëm ci ay oto lu jëm ci ay peel lu jëm ci ay bi loolu lépp soxla nañ ko euh, kon ñu ngi leen ciy xaar bis bi nag ñu fàttali ko le 20 lay doon di aj di ajuma le di ajuma mooy bisu bale bi ñu ngi ñaan ñëpp waa Touba gépp góor ak jigéen mag ak ndaw na ñëpp génn ñu nekk daar Xuddoos ak ñu nekk Touba mosquée ñu nekk Guédé fépp dëkk bi daal lañ bëgg bu bés baa mu set wecc comme ni ko sëñ bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.